yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. ok comme ni ngeen ko gisee nii gis ngeen mbooloo mi at mu jot day gën a bari gis ngeen ko fii mooy yokk bi nga xam ne moo féete ak kër sëriñ Fallou foofu bu waxtaan wi jeexee fi la mbooloo mu bari di génn ci jumaa ji di fi dugg gis ngeen ko bu ñu duggee. jàll ci barabu ndogukaay bi waaye tam am na beneen xaaj boo xam ne ñeneen ñi nga xam ne dañuy jóge ci biti wala ñu jóge ci yeneen i gox ñoom itam mën nañ faa jaare dugg ci biir euh, barab bi ñu dogee mooy bi ci sës bi ci topp mooy yokk bi nga xam ne mooy deuxième bi waaye itam ba ci troisième ba nga xam ne moom itam fa la ñu jagleel mbokki soxna yi jigéen ñi ak lu mel ne gone yu ndaw yi gis ngeen leen foofu itam waaye itam noonu ngay wëree ba ci wet gi féete Kër Sëñ Saalu moom itam gis ngeen ko mbooloo mi day gën a bari nga xam ne ñun dañu xayma rek ne juróomi junniy nit waaye loolu lii sax kenn mënul xayma nu mu toll ndax bariwaay gi surtout bu dee bisi ajjuma yi wala bis yi nga xamante ni ay événement da cee am ci biir koor gi lu mel ne laylatul xadr kon daal mbooloo mi ngi noonu gis ngeen ko fa tabaarakallaahu di mbooloo moo xamante ni mu takkoo takkoo takkoo takkoo la di ñoo xamante ni tag ñu aajo woo nag lii nga xam ne moom la ñuy def ci jumaay Tuuba yaa xayra dayfin ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi